El Hadj ginnaaw bu ñu la nuyoo félicité mu mel ni tey sa bés bi réussir na macha allah ñu la siy félicité une fois de plus naka nga gisee bi woote bi ñëpp ñëw. bon maa ngi sant yàlla bu baax di sant waa Tivaouane yëpp vraiment di wax ni daal vraiment dama kontaan Abdoulaye Ndiaye ngal gu sànq dafa wax ne waxoo xëy na dañ laa liggéey ma ne ko noonu dama kontaan madame la maire ni ko dafa kontaan c'est normal parce que nag li ko waral mooy vraiment Euh, sama parrain di Yélamine Goumbala nga xamante ni vraiment li ko war yëpp def na ko sérieusement parler ak euh, ki nga xamante ne mooy doomu ndayam Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ñëw sérieusement parler def li mu war a def vraiment jàppale ma ci bis bi bu baax a baax euh, Mame Gora Taxa madame la maire def li mu war a def jàppale ma ci bis bu baax a baax honorable député Yaya vraiment moom def li mu war a def waxuma la sax maanaam enveloppe bi mu indi mais teew bi mu teew rek dama ci kontaan vraiment ànd koog Mame Gora Taxa mu may conseillé depuis boobu ba léegi sérieusement Yélamine Goumbala ñu bari sax euh, mënuñu comprendre sama diggante man ak moom naka la demee looloo waral lu ma def suba ba ngoon moom laa koy jox mais vraiment bi ñu joxee loolu Ablaye Ndiaye Ngalgu nga xam digganteem ak Yélamine altine ak talaata la bis doxu bi vraiment moom aussi mu ñëw jàpp ci li ma ci gën a neex mooy vraiment mu équipe yi nga xamante ni ñoo doon def tournoi bi yëpp kenn ku ci ne laay defar benn enveloppe pour subventionner la loolu vraiment kontaan naa ci trop Yélamine depuis boobu may woo lan moo manqué waxal lu manqué ma ko lu manqué ma def ko maam ngóor a taxat ba ñu commencé rek la ne ma maa jënd fukki bal jënd dix ballon jox ma ko vraiment di sant bu baax ki nga xamante ni mooy Lamina Thiandou moom it jàpp na ci Abdou Sall euh, ki nga xamante ni mooy Pape Moussa Diop Pape Toro vraiment di remercier ki nga xam mooy monsieur le maire vraiment moom stade bi daf ma ko jox gratuitement sans pour autant que vraiment mu laaj ma dara li ko waral mooy xam na ni jeunesse bi rek moo tax ñuy def vraiment mu jàpp ci tey bëgguma bëri wax parce que gars wax ni boo kontaanee doo a di sant bu baax tous les communicateurs traditionnels ñi nga xam ñoom lay àndal ku ci mel ni Pape Moussa Ndiaw ma Koddu ku ci mel ni Dame ku ci mel ni euh, Ousseynou Thiam ak tous les communicateurs ah di gërëm la presse locale ñoom ñëpp ñëw nañ joxuma kenn dara di gërëm euh, première dame Kina mbay vraiment mu ngi fii toog la deuxième dame ma nga fa parce que xam nga rek ren moo nekkoon ci waañ wi moo tax mu sonn moo tax vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ay Maguette Sow ñi nga xam ñoo ñëw di gërëm les aussi vraiment ñoom ñëw nañ kontaan naa trop ci ñëw bi waxkat moom boo waxal mënatu la ngay xam ne vraiment way laaj la le pourquoi nga choisir la petite catégorie parce que d'habitude gars yi dañ doon jël ASC wala ay li nga xamante mom moy vétéran pourquoi El a porté son choix sur la petite catégorie école de football. dama déggoon sama ben rak Lamina Thiandoum muy wax nan lay jëm suba ki jëm suba lañ koy jox bu féké par exemple da nga bëgg xam say magi ëlëk da ngay yar sa ay ndaw. looloo waral booy commencé benn affaire da nga koy commencé ci xale yi looloo waral bon ma tàmbali ko ci xale yi di ñaan aussi vraiment di ko ñaan le parrain Yélamine Goumbala di ko ñaan Abdoulaye Ndiaye Ngalgu lii ñu dimbali ñu ko naan euh, ki nga xam mooy la maire euh, honorable député lii ñu dimbali ci chaque 30 décembre

asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëlee ñu ko ñu ànd ci ak sunuy xarit euh, ku mel ne Abdoulaye Ndiaye Ngalgu mi ngi fi ku mel ne madame le maire Mame Ngouda mi ngi fi honorable député mi ngi fi ñëpp ñëpp ñëpp ànd ak ñun pour ñu ñëw feetu fête bi nga xam ne seen une de la jeunesse. parce que El Hadj Mbengue bu ko neexoon mu wut ay équipe nawetaan wut ay équipe yoo xam ne am nañu public mais dafa dem choix dem ci xale yi dem ci école de football yi pour jàppale leen donc ñun mënuñu dul sant ko gërëm ko. ci initiative bi d'abord bi mu am ba pare boole ñu ci parce que mënoon na jël initiative ba defal ko boppam xam naa ne mën na ko def mais bu ñu ci boolee daf ñu bëgg boole daf ñu bëgg ñu am ci yool daf ñu bëgg ñu am ci tur daf ñu bëgg ñu yëkkati ko ji donc mënuñu dul sant ko cant googu nag ñun ñëpp ñoo ànd di ko cant ci sama baat muy ñi fi taxaw ñëpp sama ginnaaw ñëpp ñoo bokk di cant El Hadj Mbengue ci euh, initiative bi nga xam ne jël na ko pour euh, nekk ak xale yi cëral xale yi organiser leen lii ñom ñu xamné ci ñom ñoy avenir suba donc vraiment initiative bi dañ ci sant El Mbeng bu baax a baax donc lepp lu fi am rek El Mbeng lañ ko wara remercier mom mi nga xamné mom mo am xalaat bi. wa leneen li nga xamné bu bëggoon naa ko ci yok mooy initiative bu nga xamné Abdoulaye Ndiaye Ngalgou jël nako jëmele ko ci école de football yi nga xamné ñi ngi Sénégal ñi ngi ci Tivaouane école de football yi je pense que ñi ngi tollu ci fukk ak ñaar douze écoles de football ku ci nekk yëkëti na enveloppe bu cent francs jox la ko. muy 1 million 200 yoo xam ne Abdoulaye Ndiaye Ngalgou may na ko école de football yi nga xam ne ñoo nekk ci Tivaouane muy loo xam ne rek dafa ñëw euh, euh, sofu ci li nga xam ne Alaaji Meng def na ko pour jeunes yi donc di di ko remercier encore li may wax rek Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye waa Tivaouane la lu mu am Tivaouane la ko yéene geste bii moom moo ci moo ci mujj di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla yokk

lii rek ko mën a fay mooy moo am bés nga teew ñu koy sant di ko gërëm dañoo ñëw dooleel si suñu xarit dañoo ñëw dooleel si koo xam ne suñu frère la waaye dañoo ñëw dooleel si koo xam ne fierté Tivaouane la parce que tamit Tivaouane amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko sut tey bu ñu gisee doomu Tivaouane am élan de solidarité di yëngatu ci dëkk bi yëngatu bu am njariñ day nekk sunu fierté waaye au niveau national i tamit fu ñu fekk sagal ñu kon dañoo ñëw pour wax ko jërëjëf ñëw pour féliciter ko parce que nag ndaw boo nekkee ci dëkk dafa am taxawaay boo xam da nga ko war a taxawee surtout dëkku maam Seydi Hadj Malick bi mu wax jàmm fexe ba diggante di tax ah loolu moo ñu war ñun ñëpp kon bu ko El Hadji def dañuy koy sant jaajëfal ko bu baax a baax mu jël parrainage bi aussi jox ko suñu beneen frère muy lamit Gumbala kon mbégte lañ fi ñëwee ñuy sant yàlla bu baax ndax nag bi ñu àndee ba léegi dara ñaawul Euh, El Hadji Mbengue tamit nekk suñu wet boobu ba léegi dañu jàppale kon na xam ne rek marque de reconnaissance lañ am ci moom di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale presse bii nga xam ne da koo yor mu nekk une presse internationale yàlla ci yàlla def barke mbégte loolu lañu am moom moo ma tax a jóg nag à vrai ndax nag xaw ma ban façon laa ko mën a fayee kon li ma ko mën a fayee rek mooy bësam bii nga xam ni ñëpp a ko teewal ma fexe ba bokk ci ànd moom mbégte lañ ci am